télé bi bégal sama askan Ladoum TV c'est Ladoum TV ning ci gis sa bopp jànge falun émission chez le vétérinaire dina ànd ak yow saytu wergu yaram santé animal ngir a saytu sama laanu mi dundee. fii ci Ladoum TV. jox la kàddu. mi nga mën wax sa jaar jaar. danga ko bu la dara raw. Mm. visibilité dinga am promotion dinga am. nanga wane sa ci émission jaar jaar mi nga àndal. waaw téléspectateur Ladoum TV comme ni ngeen ko gisee ba tey ñoo ngi fii fi nga xamante ni sii mooy xaar yàlla. mu nekk seen quatrième édition waaw ñu nekk ci box numéro cent taxaw ak un très grand champion ñu bari nag gisee woon ko mu nekk ci collier yi ñu koy wax cheikh collier maanaam day décorer xar yi décoration bu nice tey nag mu ñëw indi collier yi waaye nag indaale li ñuy décorer macha allah muy xar yi ñu bàyyi ko mu nuyoog téléspectateur Ladoum TV gannaaw boo nuyoog téléspectateur Ladoum TV gis nañ la nga tey fi benn jeune mâle bu rafet nga présenté ñu jeune mâle boobu cheikh salaamaaleykum waa ahlu élevage salaamaaleykum waa Ladoum TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen wàcc seen wàccuwaay waaw di leen présenté jeune mâle bi ñu indi mi ngi tudd Bouchra Koumo nekk doom ci Baye Mbarick Baye mbaarik nekk doomu Mbarick Mbarick nekk doomu Grand Rane su ci yaayam yaayam nekk sëtu Arfan nekk sëtu Abdou Fall nekk sëtu macha allah bu Papi Dieye ñett ñooñu ñoo tëgg yaayam su dee ci wàllu papaam tamit aussi saa xewar ak euh, Mbarek ñoo tëgg papaam daal macha allah. waaw ah, téléspectateur Ladoum TV yéen a déggandoo yéen a gisandoo bu ngeen xoolee jeune mal bi rek sa xol day sedd parce que jeune mâle bi mi ngi yëmbax yëmbax goo xamante ne si non kii lafcat moom mi ngi toll si ñaata mois ak tey kii fan nga yaakaar ne war na mën a yóbbu élevage Sénégal. waaw moom mi ngi toll ci 11 mois waaw mi ngi toll ci 11 mois waa am ngëm-ngëm ni fi ay maamam jaar ba arrivé ba indi fii élevage am naa yaakaar ni moom. Euh, su fa jaaree dina yokk plus que quoi waaw wax dëgg fa yàlla te yaakaar lañ am ci moom di ñaan yàlla nag yàlla bañ a tas yaakaar mais ku ko gis daal xam ni wax dëgg fa yàlla li ñuy xool ci géniteur lépp mi ngi ci moom li ci des nag moom mooy dañ koy ñaanal rek euh, li nga xamante ni moom la ay maamam def mu def plus que loolu daal lañ koy ñaanal waaw di ñaan nag éleveur yëpp tamit aussi ñaanal ko lu mel noonu waaw macha allah. Uh-huh. waaw ak lu élevage ko ñaanal macha allah ndax kii moom. tubaar fakkal la bu amee fan wu guddax wér ah élevage dinañ ko dégg fu kawe njortu waaw ba tey si biir sélection bi gis nañ fi léegi nga téye fi benn tëng bu rafet bu am benn tampon ñebbe ci loos bi kooku mooy kan. waaw kooku nag mooy Ndeye Rama kooku sama aaw laa ko tuddee kooku wax dëgg fa yàlla moom aussi fixation la ci diggante mbaar mi bu Assane ak euh, amitié amitié ku ko xam-xam ne doomu jibéeru la dañoo jël doomu doomu amitié Euh, teg ko ci doomu mbaar mi ñu jur yaayam yaayam moomu tamit aussi euh, papa ji yoxosuwaat ko tëbaat ko moom mu juddu ci voilà moom fixation la quoi muy ndeyrama voilà moom moom moom moo magee kii nii euh, ay quinze ay astafurla ay une semaine parce que moom mi ngi ci onze mois mooy mi ngi ci onze mois voilà. ba tey gisaat nañ fi nga tey waat beneen tëng kooku nga présenté ñu ko tëng bu rafet def ay lunettes. waaw tëng boobu tamit moom laa tuddee sama ñaareel muy Adama. moom sama ñaareel laa ko tuddee muy Adama Adama Gueye moom it wax dëgg fa yàlla nekk tamit aussi jarbaat ci kii di Bouchra Koumo nekkaat rakkam ci moom. parce que dama jël euh, magu Bouchra Koumo bu jigéen teg ko ci Baye Mbaye rek mu jur Adama voilà su dee ci yaayam nag moom euh, doomu doomu Karim Maysa jëloo jël doomu Karim Maysa bu góor teg ko ci euh, doomu maanaam ci magu Bouchra bi ci magu yaay Bouchra bi moom mu judd waaw moom sëtu Karim Maysa la. waaw ma jël ko teg ko ci Baye Mbarick moom mu jur Adama Gueye moomu quoi macha allah muy tëng boobu ngay wax noonu muy tëng bi nga xamante ni borom lunette la sans corne bi macha allah. ah téléspectateur Ladoum TV yéen a gisandoo ba tey beneen tëng gisaat nañ ko nga téye ko fi tëng boobu mooy ka waa tëng boobu nag moom sama maam laa ko tudde muy maam Mati kooku kooku wax dëgg fa yàlla moom it mu nekk tëng boo xamante ni moom mooy maam Mati moom it doomu Baye mbaarik la moo ko Bouchra ñoo bokk papa. waaw moom su dee wàllu yaayam yaayam tamit aussi doomu comment dirais euh, kii la euh, banque mondiale yaay ji doomu banque mondiale la. waaw ma jël ko tegal ko ci Baye Mbarick moom mu judd quoi voilà voilà. ah téléspectateur Ladoum TV bu ngeen xoolee sélection bi nga xamante ni si Cheikh moom la def nga xamante ni si ay xar yu ndaw lëkk la fi indi ay xale mais xale yoo xamante ni si xale yu am avenir kii tey ku ne bëgg na mu ñëw këram daagu fa. ndax boo xoolee ay tëng de plaisir jeune mâle bi nag moom ooxoo ba mu juddoo ba mu ko gisee tëngéej laa ko gisoon no mu nekk jeune mâle boo xamante ne si xamoon naa ni lay mel Cheikh nga fàttali ñu bergerie fan la nekk ak sa numéro téléphone. waaw bergerie mi ngi Tivaouane Peulh sama slogan nekk euh, Apix élevage partenaire euh, su dee sama numéro téléphone nag 77 407 33 52 77 407 33 52. waaw maa ngi Apix Tivaouane Peulh daal macha allah. Mhm. merci jërë ngeen jëf waa ahlu élevage gépp nag ñu ngi leen di ziar ok merci. mooy télé bi bégal sama askan.